asalaamaaleykum anche billahi mina sheytaani rajim doom du fo lay doom du fo doom kenn du ko caaxaane teg ko ci sa bakkan bu ko tudde benn aawo noo amee doom di ko tudde ay aawo yi nga xamante ne nii safunu daqaar safunu beqal nga leen di tudde aawo nga leen di tudde doom kenn mësu koo gis na ngeen def nuyu naa leen bu baax a baax yéen ñi ma fekk ci buntu bi anche billahi mina sheytaani rajim bu mu jëm kaw <laughs> waaw aawee nekk ci groupe bi dinu di ko lëmbe dinu bëgg rey ay waxe eh, waaye may leen ñu waay aawee may leen ñu ngir yàlla waay ñun sonn nan trop ci àll. salaamaaleykum famille sénégalaise ci lu ngeen nekk naka guddi gi ñu bàyyi na si jàmm ah, bàyyi na ko yëg aawee bi daal leen ah, leen ma de. waaw nuyu naa la baax taaliba yaayam sama sopp bi nuyu naa la bu baax baax a baax madame Mbodj daal nuyu naa la nii mbaa yaa ngi si jàmm waaw ah, waaw onze bi lay am na seytaane rajim tey astafurlah <laughs> cey suñ fan si suñ fan bi daal moo gëm boppam rek lu mu nekk daal da koo dëgg da dëggu lii taaliba yaa man daal mu ngi noonu kontaan naa daal <laughs> kontaan naa de waaw sëbu tarbiya bi gam jàppale ko te de ji ree jàpp ko mu ngi noonu <laughs> soxna daal amatul ci mum réew waaw sama fan si boobu daal macha allah eh, ko daal maara jur jurut ci buum la soxna ne waaw doomi maar fat force lay doon dagan na ko fat force waaw moom kay comme muñ ci sëy bi moom doom fu mu ko mën a foree jee fu mu ko mën a lijjantee doomi maar loolu lay doon. moom lay sant loolu lay sant maara koy doomoo force force kay ci mu neex ci mu naqari waaw <laughs> moom <laughs> ngi noonu daal famille sénégalaise amul morom ah en tout cas daal moom moom allahu ahlam yàlla rek xam waaw ah, gis nga moo tax yàlla suñu borom kenn la côté boobu daf caa maandu côté boobu ak caa maandu ba tax na ñu daganal ci doom bu juddee ci sëy sax même bu nekkee ndaayam dafa foy feneen am ko tam nekk ci buumit baaja moo koy moo koy moom rek baaja lañ koy considéré mu ngi baay baaja daal lañ koy adressé moom force ci yàlla suñ borom moo ñu gën a maandu de ah, waaw te xam ne lépp macha allah xoolal li ah day na waar ah maar tamit mën na ko jur pourquoi pas mën na ko jur mën na ne doomam bi mi ngi noonu ah soxna yaa am na doomam doom ji daal tudd nañ ko tuddee ko mu tudd saxati mareetu mi ngi noonu soxna maara jur daal yàlla moo ko xam ak ak ak soxna ba waaw yàlla ak soxna ba tër daal ñun ñaar xam mi ngi noonu nag. boo déggee wax la bi ma xasee bi ma bii wax na ko yow am nga kene maar foo la xool lijjante ndax maar xam na dégg na audio bi te xam na lépp dama ko doon laaj non non mu jékki-jékki lii de ndax affaire bi dafa yomb daa gaaw jékki-jékki nii rek dana ko xamee noonu. asalaamaaleykum waa famille sénégalaise ziar naa leen naka suuba si. gaa ñu ngi si jàmm naka waa foofu ñu na ngi naa leen waa groupe bi yëpp yëpp yëpp ku ak santam euh, macha allah kontaan nañu bu baax baax a baax a baax neex na loolu waxtaan bi neex na euh, yàlla ko ku suba ma asalaamaaleykum na ngeen def naka suba si yéen am jàmm ça va taalibe yaaya ah, naka mu dangaa ruus rek moo tax nga waxee noonu ah ñun awa ah, yi mooy yëngoo réew mi di ñaari ruus dangaa ruus ruus moo tax <laughs> nga waxee noonu ah kii sëriñ bi tudd na ba pare loolu moom changé amu alhamdulilah mi ne seetaan rajim comme ni ko sëriñ bi waxee waaw kay laa xawla wala quwwata illa billahi al aliyil azim comme nag sëriñ bu mag bi waxee waaw saasu saas maa ngi lay ziare di jox sa wàccuwaay xam nga ne xam nga ne xam nga ne lu dul dëgg du yàgg dëgg moom waaw lu dul dëgg du yàgg ndax xam nga lu tax xam nga ne yow moom ab ñaareel mënul mënoo mënul wax a wax a wax a wax sut ab aaw mënul nekk mënul nekk ab ñaareel ñaareel yi nga xam ne ñoom daal xamu nu ma ko mën a waxee dama rus <laughs> dama am kerse si ñaareel yi nekk ci kii bi groupe bi <laughs> yow taalibe yaa yoo comprendre ñaareel duñ Papa Ndiaye Papa Ndiaye ñaareel ñoom amuñ caaj amuñ caca sax xaw nga waxee ñaareel yi amul amul amul amul période ñaareel amul ñaareel ñaareel amul pooj bu mokk ñoom daal leen na yoo seex xaw ma ak comprimé la xaw ma ñaareel yëpp la nag soxna Batour di leen feeñal rek mais ñaareeli Sénégal yéen yi di li ma waxoon keroog rek deux mille quinze jàpp deux mille vingt et un <laughs> yee eh, jëm ci kaw nag ba deux mille cinquante ku fi takkam ñaareel da nga dee. asalaamaaleykum waa famille sénégalaise man leen nuyu di leen ziar naka suba si maa ngi rek ak jàmm bu baax di leen ziar di leen wax naka seen suba mbaa mu ngi kuul di nuyu ku ma fekk si suuf ci kaw nuyu naa di leen ziar. nuyu sama brothers yi sama oncle yi sama anti yi sama mag yi nuyu naa ñëpp di leen ziar waaw di wax soxna Bator moom kañ la man soxna Bator kañ la ñu mucc si moom ok nuyu naa leen ñëpp di leen man la Penda Sow Gambia waaye nekk nañ si jàmm bu asalaamaaleykum maa ngi nuyuwaat sama waa kër gu maa ngi nuyu ñëpp nuyu waa ëttu femme sénégalaise ñi suuf ñi ma fekk ci buntu bi ñoom ñëpp lim naa leen maa ngi leen di nuyu leen sargal leen jox seen wàccuwaay ah leen bëggee yéen ñëpp di kontaan ci yéen waaw soxna Bator bi ñu tuddee wee mareetu doom ci ah c'est normal de waaw war nañ ko ko tuddee parce que mooy njëkk mais doom ci. dina dina dina féete côté côté côté biige ak mari dafa sabal tax biir bi lañ dul gëmee te biige dafa bëgg yaayam day bëgg turandoo bi dina jël xale bi tax xanaa mu ñàkk cee jot ndax ñàkk dëkk bi ñàkk dëkk noonu doo nga ma si jaaxal waaye biige dina jël xale bi taf ko ci kawam ba dina ko wisi si li mu bëgg dañu ànd nekk bon coalition waaw soxna bu tër moom gisagut dara comme ni ko ko am na ko wax sànq nee seul le travail qui paye nit ki li nga liggéey rek moom lañ lay fay ku dee lu baax di nga di ku bay lu baax am lu baax ku bay lu bon am lu bon waaw sama bëtër nag moom añam a ngi ci añi bisam a ngi ci bisi di ko xaar day yéex rek ñun soppee mareetu man da ñaareel naa xertu ci këram nii maa ngi ci côté aawa bu aawa yu baax yi waaw ñun ko ñun fan su mareetu yi fan su biige yi ah sunu xol dina sedd de na nii mais sunu xol dina sedd ba dinañu soxna bu tóor moom du ñaareel dara dara dara dara ab ñaareel la yàq dara ñaareel yi lay def waaw yàq na dara ñaari ba jaratuñu dara dara koo wax mu ni soxna bu tóor yàq na te kon nii ngeen di dundee nii ngeen dundee te soxna bu tóor nii man ko dal waaye nag liñ liggéey ndey añub doom moo ko dal comme yaa ndeyam doon na liggéey lu bon loolu bii gi waxoon te moom it bon na bon gu doon toroxal ndeyam ah dina ko gis de parce que yàlla suñu borom bi dalay dalay dalay xam nga dégg lañu kii am na ko naan sànq film ñoom day ñi naan sànq film la rek buñ ci dugal yàlla ah kay dañoo ñëw jël réalité bi ci biir kër yi ñoom ñu gil ñu ko pour wan ñu ñu jigéen ñi nañu yeewu wan góor ñi pour ñu yeewu réalité la dañ ko jàppee réalité parce que kenn ku ne da ciy defaroo ba tax na si soxla bu réer yàlla da koy fay ba wis te day torox yi parce que dañ ñëwoon naan la kuy def lu bon yàgg yàgg yàgg yàlla dina la fay ba tax na soxna Batoor mii añam a nga ci añi ay torox ba torox tot te sax nga xamoon ne boo bu la seytaan dee jay da ngay yaakaar ne doo mus a loo def xeeb te pour gis koo bëgg yow ki nga bëgg sax am na nu muy defee nga teg ko sa faat parce que maar mi ñu ne dafa bëgg maar moom bëggul sax maar parce que maar moo xam bii gee dox sëy bi maar jóg jóg dem takk ko indi. mbëggeel mbëgg doxaanu ko defu ko dara génnuñu dara xëy da koo xëy dem takk indi waaw ba ñëwee gis alal ji yaakaar na moom kenn war ko ci moom mujjee ñëw mais moom war a jël lépp mooy naaw bi maar mi nga xamante moom lay sëyal boo xool sax bëgg ko parce boo ko bëggee doo sëriñtu doo joxe doom doo defi dara da ngay sëy te yàlla tax ñu soxna bu sëy yàlla tax sëriñ la sëyee na leen ko bàyyee rek di ko seetaan léppay ñëw léegi ñu film bi man xam ma lu ma ko jàppee réalité sa da ciy defaroo bu dee côté euh, Mariétu nga roy di nga gën a defaraat gën a jël ci Mariétu jikkoom ju rafet ju tey ju dal ci nga jël ko gànnaa yoo ko def ko sa arme def ko sa biir xol bu dee da ngaa bon rek nga gis soxna bu def muy bon nga ne naa ah, naa def nay soxna bu def ndax mu ngi ruubee kër gi muy neex ci côté di sëriñ ah demal sa añ a ngi ñëw bu dee xale bu baax it nekk ci côté ndeyam di dimbale ndeyam ak baayam toujours mi ngi seet lu jëmale ko seen kër kanam mais doon def ñu ko lu bon te xool leen bii de jàng na ba téye war a téye bagam mu échoué taxul mu bàyyi de découragé wul dafa dem rek di continuer di dóoraat di dóor di dóor ba yàlla fi mu ne nii lu buntu liggéey jaay na def na lu ne mais bu doon keneen day doon benn xale bu bon la daan ah je m'en fous sànni kay fële sànni liggéey bi fële dem taxawaal ci mbedd mi lu mu am jël. su ko neexee daal di aw yoon ñu jox ko mu jox ko beneen rôle parce que dañoo bëgg a wan xale ni dé bu xale du découragé su ko neexee daal dem jël beneen yoon bu bon di am xaalisam di indi bu yaayam dafa soxla mais déedéet dafa gën a serré ceinture gën a takk sërëm gën a ne acca yoon waa ngi dafa war a mën a leer yéen a leen góorgóorlu waaye ñun jigéen ñi yàlla baax na yéen dañ ci jàmm waaye.